waaw man la Ousmane Joxaane dëkk Bambey créé benn mouvement mouvement bu naan ànd xeexal Bambey mouvement wu na boo gisee ñi créé ko parce que Bambey dafa gisul boppam ci bépp boor ci problème mu développement problème euh, financement ci problème mu université bambay bi doom Bambey lott nañu pour liggéey sa waay te loolu du yoon ñu ngi ñaan nag sa waay autorité yi fi nekk ñi gën a jàppale waa bambay parce que Bambey sonn nañ bi liggéeyuñu dara. loo fi bëgg di ko lijjanti dafay te te loolu du dëgg du yoon ñoo ngi lancé président de la république depuis 2012 ñun ñoo ngi ki moom ba 2019 ñoo ngi ki moom amul benn boo xam ne ay activité Bambey gis nañ ko ci moom sa waay di dellu lancé ministre de la jeunesse doomu Bambey la nee na Fatoumata Tall sama seur maa ngi koy ñaan ci projet yi muy def a financement yi mu def na ñëw jàppale waa Bambey ci loolu weesoo maa ngi gërëm euh, monsieur Omar Wane jàpp na suñu combat bii

te léegi nag danoo bëgg koo xam ne nii day ñëw ànd ak ñun ci loolu ñun nag waxunu ma Samba waxunu ma Demba képp ku nu mën a jàppale ku ne rek tàll nañ la loxo ñu ngi sant Omar Wan Omar Wan doomi Bambey la wane ne doomi Bambey la parce que sunu bés bi tey da cee jàpp jàpp na ci lépp nag ni ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yokk aw fanam may koy xéewali saawan baawaan man nag loolu laa man lu may wax. premièrement première édition set setal luñ si paree pare nañu wër ci bépp koñ fekk fa ñu fa nekk ñu ànd ak ñoom liggéey ñoom sa waaye dinañ def environnement suñu paree bëgg nañ ay moyens yoo xam ne dinañ ko def social dem ci jumaa ji joxe fa ay masque joxe fa ay gel joxe fa ay bale loolu bëgg nañ ko ñu ngi taal nag autorité yi ñu gën ñoo jàppale sa waaye parce que ñun Bambey rek la ñu gëm gëmuñu leneen lu Bambey sa waaye te politique buñ ne politique politiciens yi war nañu roy ci Bougane Gueye Dany parce que Bougane Gueye Dany lu tax mu neex ma social lay def ak développement politique bi si développement jugee social juge jugee fa doonatul politique parce que di rang ci kër yi di la may xaalis ak yooyu ñu gëmuñu loolu ñun dañoo fexe ku ñëw jëmmal Bambey ñëw liggéeyal Bambey képp koo xam ne na bëgg nga mairie bi

université doom Bambey liggéey si loolu la ñuy kaas di ko wax sa waay ñu dool a góorgóoru te bàyyi naxaate bi Bambey naxaate bi dafay bari bàyyi naxaate bi ñu ah, gëmuñu loolu ku soqali Bambey la ñu loolu la ñu gëm Bambey mu ma a xëy na xeex Bambey jërëjëf ah, lépp loo gis rek waaw léegi de toutes les façon daal suñu activité bii boo gisee ñu tàmbali set setal bi euh, doomu aadama set dafa jiitu si moom ba noppi set mooy lépp waaw xaj na nag tàmbali bi yombul mais nag incha allah dina dinañ jéem a def suñu effort waaw di tàllal nag ñëpp loxo ñun ànduñu politicien ma sàmm képp koo xam ne développement bambay moo tax moo tax daal nga fekk si daal bisimilah. ak social waaw. ah ñu xamal tamit nag njiitu marché bi ak kilifa yeeg ñun ñëpp daal kenn ku nekk bëgg nañ dem seeti waxtaan ak moom daal suñu mouvement bi ñu fexe daal ba tamit même daayira yi nga xam ne noo ne si koñ bi tamit ñu jéem a ñoom. ñu def chaque dimanche ñu jël benn côté ñu set setal ko ba mu set xaj ñu nag daay ba bii wala daay ba ñëpp daal képp ku sa mouvement tamit boo ñëwee appuyé ñu tamit ñu ànd ak yow lu set setal dëkk bi ak lu jëmale dëkk bi kanam ñu ngi gërëm na képp ku ñëw ku ñëwul. Euh, kii li li kii wax si njaga kii nu sax si Umar Wan tamit bala ñu koy gërëm tamit dañ koy jaarale si njaga parce que bu buñ ko xamee njaga moo tax sunu grand frère man dama koy remercier ndax moo ma sa koñ balaa dëkk waaw lépp moom moo si loxoom la jaar. ñu ngi si xalaat si lépp kon tamit man dama koy remercier njaga bu baax a baax di ko sant di ko ñaanal lu mu mën ren yàlla na ko yàlla defal mu mën lu ko raw waaw monsieur Omar Wane tamit ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax miinuñu ko mais tamit daal loxoom gis nañ ko bu baax a baax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam rasulillah waaw wax ji confirme na grand ñun sant nañ la yow mi jël jël jël yow mi jëlal lii sant nañ la bu baax ñun nag dara ñoruñu Bambey rek la ñu yow yaa ngi si biir keneen mu ngi si biir ñëpp Bambey la du benn mouvement du benn daayira du kenn ku koo xamante génn lañ si sa loxo dañuy yaatal Bambey moo ñu tax a jóg képp ku bëgg Bambey développé ubbil nañ la bunt pour nga ñëw tàbbi si wax ji jarul muy gudd liñ fi war a wax yëpp Ousmane wax na ko kii wax na kee wax na jarul muy gudd sant nañ leen gërëm nañ leen waa Bambey yëpp ñi ñëw ak ñi ñëwut sant nañ leen képp ku ñëw sant nañ la ku ñëwut sant nañ la bu baax lii dañ koy continuer duñ ci dellu ginnaaw bu ñu paree fii ñu ngi dugg si koñ fu ñu ma xalaat ne war nañ faa mën a yegg dinañ fa yegg def fala ñu war jënd ay masque jéem a tas kii ci ci dëkk bi parce que gis nañu li ñu coow ci réew mi fan yi ci bépp gox ci Bambey ci koñ-koñ yi doon kuréel boo xam ne ñu tuddee ko mu mouvement ànd xeexam Bambey ñun Bambey moo ñu tax a jóg liggéey suñu dëkk rek moo ñu tax a jóg ñu fas yéene dem waaye di def suñu premier move uh, suñu premier uh, activité tay ñu démarré ko ci set satan léegi marché bi lañ jugee set satan lañ koo pare ñu ne kat dañu dem kër sëñ mutala set satal fa bu ñu pare ñu siyaare sëñ bi ngu ma ñaaruñu loolu rek moo doon suñu yitte ñu ma àndal ñu ñoo ñëpp booba léegi su booba léegi ñoo ci liggéey bi daal loolu daanañ taxajoog siyaara ñu baax a baax a baax baax gën ñu jàppale di gërëm nag Omar Wane Cameroun moom mënuñu koo fay moom wax dëgg yàlla ba ñu commencé combat bi boobu ba léegi nii bàyyi loxoom si ñun lépp lu ñu man mu ñu koy jàppale di gërëm ñu jaayam bi njaga na yàlla tey lu ñu man tey jii ba man li lu bari moo ñu taxawu daal di ko gërëm di ko sant lu man ren bu déwénee yàlla nag man lu ko ëpp sawaay ñu gën rek góorgóorlu gën a liggéey parce que Bambey moom liggéey moo ko yor waaw liggéey développement social bu ne politique loolu tax ñuy wax ñoo ñu politique ne sawaay njariñ ak seen ñu nous ñu lool nous ñoo jog ñu dimbali wa bambay jàppale ci financement ci université bi le nit ñi sommes liggéey ci ci activité ci social ñu loolu ñu tax nous waaw gërëm ñep di sant te wax ah waaw asalaamaaleykum maa ngi eh, maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp eh, di jiital ci nuyoo bi sëñ bi moom minante wuñu waaw ah, sëñ Maxtaar yow sama sama nga woon Maxtaar Gueye laa tudd ah, te sëñ Maam Mor moom sama sama wëllëre la sama wëllëre waajur la soxna Maam Bal sama wëllëre la sama wëllëre waajur la eh, ñu ngi lay ziar ñaan suñu borom bayyi la fi ci ba ci kanam ak kanam ma ak wér barke suñu fàll di rafetlu ñoom li ñuy def ni parce que bu fekkente ni bii da nga nekk ci ab gox di góorgóorlu pour que gox bi nga nekk mu set pour que gox bi nga neex nit ñi nga xamante ni bi ñoo fay yeewoo di yeewu ci cadre de vie boo xamante ni bi bu sain la loolu dañ koy rafetlu li ci kumu wahlegi kumu wax Umar mom sama jarbat la mako yar ki Ahmed Bass la tuddu mom aussi ci collaborateur yi la bok Ousmane bi mu ñëwee wax ma sen mebet yep na gis na ñom li bëgg lepp dal moy développer Bambey fi te moom aussi lool moko ko jog développer Bambey mom DER la nek délégation à l'entrepreneuriat bima ma ko waxe ma ne ko waaw li gën comme yéen da ngeen am mouvement li gën dal moy ñu jema xol nan lañu mëna lekkolo ba and ak Omar liggéey comme développement Bambé rek mom mo leen taxajuk lool aussi mom moko taxajuk ta mom aussi position bu mu fété nga xamanteni bi bi il faut mu politique parce que comme mom aussi dafa bok ci parti bu tudd APR amna yo xamanteni bi sax amna xam ni ngi fi fekke won nañ ko ci campagne bi niñ taxawon ci campagne beeg yooyu waaw yooyu loolu weesu Euh, li nekk ci kanam mooy moom bi Macky nekkee premier ministre moo nekkoon conseil juridique am fee muy liggéey ci DER aussi tout ce qui est moom moo koy lijjanti financement yi mu njëkk a jot avant campagne bi loolu waxuñu woon si ay waxu campagne ay yu bari la bi mu ko indee fii seetul kii APR la bokk seetul kii PDS la bokk pour Bambey la ko indil jox leen ko Bambey créneau bu njëkk bi mooy loolu liggéey pour Bambey jeune u Bambey ba pare nag li ci des soog a ñëw Ousmane ma koy gërëm aussi parce que bi ma ko waxee ma ne ko nañ leen ànd liggéey mu d'accord ci wax ak ñu bokk ak mouvement bi yëpp ñu d'accord ci dañuy ànd liggéey li ci des mooy euh, moom am na yaakaar ni niñ ko joxe xaalis boobu mu ñëw dugal ko fii ci nit ñi am na yaakaar ni buñ ko joxaatee loo xamante ni bii war na koo mën a indi ci askan wi day bëgg bu ko fii jox ko ay nit ñoo xamante ne bii man leen a identifier looloo waraloon moom mii Euh, ci jamono yële passé demoon nañ këram pour installer ko benn comité euh, di leen sant di leen gërëm di leen wax daal wàññi boo gis daal ci benn lay tàmbale waaw <laughs> sant yàlla daal sant yàlla di ñaan yàlla bu ci seytaane dugal loxoom waaw lépp lu ngeen bëgg lépp ñu bëgg pour Bambey rek jëm ci kanam yàlla nañu ko suñu borom defal barke Sëñ fallu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu ci kàddu gi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 waaw ak eh, jëmale kaddu cant aussi ci sëñ Maxtaar ak eh, sëñ baas bi ñu wax ak ak ak sëñ collaborateur bu gën a mag te muy Omar Wan di doomu dëkk bi aussi eh, kon ñu ngi leen di wax ni yéen waa ànd xeexal Bambey yàlla na ngeen am ndam ci li ngeen bëgg a def ndax yaakaarlu na ndax yaakaarlu gi mooy dara a am su set amut su set amut dara lu baax du am ngeen commencé par set dèjà mooy seetal te li ci gëna neex moy ngeen xol ko fi nit ñuy gën bari te lool moy moy mooy jaba moy marché yi ak ak ak barabu jaamu kay yalla yi jàkka yi ngeen tamu ñaari barab yooyu tamu ko ci mosquée bi nga xamni moy bi nga xamni Serigne Moussa Moustapha Mbacke mu Serigne Touba moko ko sosal boppam sëriñ Abdou Khadir mu Serigne Touba aussi moko ko tegal xeer bi sëñ Moustapha moko ubil bopam boppam jël ay kilifa tek fi jox len ko. Euh, muy loolu bëriwul fu mu am ci mi Sénégal li Sénégal di yaatu yaatu ak sëñ bi bari li bari bëriwul fu loolu am kon baam am na tawféex ndokk yeen bi ngeen xamee tawféex jooju ba tax ngeen tàmbali seen liggéey fii ci kër sëriñ bi euh, dañ wax ni sëriñ bi am na mbégte lool ci ci ci kuy taxaw taxawaay yu mel noonu sëriñ bi moom amuñu appartenance politique yu mel waaye bu ñoom li ñu am yéen a yitteel mooy kuy kuy askan wi ñor waaw te comme yéen euh, da ngeen bëgg a xeexal Bambey muy xeexal gox bi yëpp ñëpp ñëpp gis ci seen bopp waaw ndax bu loolu lu koy dëggal mooy euh, comme ci marché ngeen de marché kenn moomu ko marché ñëpp fay dugg di jënd barabu jullikaay yi ñëpp kenn moomu ko ñu jull ku julli rek ci nga bokk donc loolu day wane ni yéen kon ci seen liggéey bi ngeen liggéey fa ngeen fas yéene tëgg tëdde njaaxaanaay comme ni ko sëñ bi waxee ni ko sëñ Omar waxee bu bëgg bu bu fi daal dèjà bu fi indi ay financement sax xamee wu ci woon ku bokk xej ak seen kon bu fekkee ni yéen li ngeen liggéey nii gën na ko feddali a ah, loolu de dana yaakaar lool yaakaar naa ku leen ñaanal tuuti rek suñu bam dana leen defal tawféex ba ngeen ko bëgg ngeen amee ko noonu ah euh, euh, mag amu fi mu magee lool tey loolu day wax ne moom yëf yi la solo yëngu yëngu ay ndaw la waaw yëngu ay ndaw nag euh, boo leen ñaanalee seetaane musal yàlla musal liñ seetaane rek eh, mën nañu am ndam ndax ginnaaw buñ mu toj mu seetaane ba noppi li daanaka bolo leen ak pastif ak laxasaayu nango liggey te yalla rek tax nango liggey ak developer dëkk rek tax te lolou bu leen bu ngeen muccee rek ma ngeen ko am waaw du ay du ay du ay du mbolo du ay moyen dedit bu leen xeb aussi sen li ngeen def bu leen xeb tam ni ngeen tollu waaw kenn ku nek bari gi amul solo li am solo moy liggey liggey bu yalla nango liggey liggey bu am barke ah te fi ngeen ko tambale dar du fi tambale di di di suuf mom inshallah bu ngeen amé positif tout rek da da da ngeen da ngeen gis ngay lool serigne bang ci am mbégte lol nak di rafetlu li ngeen tamu eh, barab bu mel marché bi nga xamni mbolum mbooloo tamu barab bu néegu yàlla bi nga xam ne fi la nit di jullee tamu tam keur Cheikh Moutada seen activité yi ngeen ko fi ah bambay de ken mënu fi indi buntu keur Serigne Touba bu gëna yaatu keur Serigne Moutada ah fi nek waaw lol moom mënul nek ken mënu ko ndax eh, Serigne Moutada Serigne Touba waaw amul len lo fi tuddu len kon nak fi ngeen ñew war ngeen ñew ngeen fi ngeen wara ñew waaw ñew ngeen fi ngeen wara ñew li ngeen fi séentu ba tax ngeen taamu ko yàlla bu leen seen yaakaar yàqi ko waaw yàlla na ngeen dajeeg tawfiq suñu borom li ngeen bëgg lépp ngeen ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax baax sëñ bi ñu ngi lay gërëm di la yóbbante eh, nuyoo sëñ bi ak siyaaram ak ak ñaanam ak cantam ci Omar Wane eh, di nuyu ñoom wa association bi tamit di leen eh, yóbbante siyaaru sëñ bi ak cantam ki seen taxawaay bu rafet bi jaare ko turu sëñ bi di nuyu jox joxaane di nuyu te kan mu bàyyi doomu bàyyi bi rek joxaane la waaw c'est kooku suñ kon suñ suñu dëkkandoo la di nuyu aussi di profité di sant euh, sëñ Modou njaay mii nga xam daanaka lépp lu waay def ci dëkk bi ci lu baax danaa koy gis mu koy wane te loolu day wane moom tam comme comme ci dëkk bi la bokk rek te yéen ci dëkk bi ngeen bokk loolu loolu dal na ci xel daal yàlla na li mu yor barkeel yéen tam yàlla na li ngeen yor barkeel waaw ñu ngi jéegu lu baax kàddu yi xëy na euh, mel na gudd na waaye lii sëñ bi waxoon amoon yéene wax ko euh, ëppoon na lii ëppoon na lii waye nak eh, li li duuf ci ci nag bi yëpp su ko def ci bir ci li yal na yàlla barkel seen liggéey barkeel rek mom solo bari le amul solo waye barkel rek mom solo te yàlla na ngeen barkel le waaw da ngeen da ngeen tàmbalee ci ben waye bu ngeen xam fa ngeen dem yem barke sëñ Tuubaa loolu yàlla mën na ko def kon xana ñu tal rek sëñ bi defal ñu ñaan waaw di santaat ba xalé yi ndaw ndaw ndax xalé yi dañuy tut tut tut eh, lu mel lu mën a am ta xalé amu ci rek eh, yaakaar dana ca dess lu man am tam te jigen amu ci tam yaakaar na ci dess gis na ni ci bir yi li muy néew bari yep gis na ci jigen gis na ci ay gonay ndaw gis na ci ay ñu xawa deugar dëgër day wani kon euh, mbolo mi mbooloom dekk bi la rek mbooloom generation yep ñep ci gis seen bop itam waaw ñu ngi sant bu baax tey wacc suñu kàddu ci ndigal sëñ bi lool lañ doon bëggoon euh, yene wax leen ko rek xeyna señ bi ñu ngi jégalu baax xeyna bu amna lu ci dess itam ñu ah, kon ñu ngi sant bu baax baax yalla defal yalla mi ngi sant defal tawfiq ba nu mottu li señ bi kon jërë ngeen jëf baax jërëjëf tàll leen defal ñu ñaan